Keep at you waiting. wéy ci xibaar yi wax lu soxol kàddu yi nga xamante ni euh, premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko démb bi ni janoog te xibaar yi ànd ceeg yeneen i ministre loolu nag ngir euh, wax tolluwaayu réew mi ci wàllum koom-koom nee neen nag euh, tolluwaay bi doy na waar lool ndaxte ñi fi nekkoon dañoo fay al réew mi ci li ci gën a doy waar nee nañu dañu doon nëbb chiffres yi maanaam di joxe ay chiffres yu baaxul ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jëflanteel di mel ni FMI ak Banque mondiale loolu nag économiste yi ñu seen xam màcc ci wàllum koom ne nag jot na FMI indi leeral ah, ci mbir moom nu mu demee rawatina nag bor boo xam te ne nee nañu bor bu ëpp 1800 milliards yoo xam te ne fu xamuñu fu ñu jaar Seydou Nourou Ba Magaye Gaye di économiste international nekkoon tamit di liggéey ca banque africaine bu développement di BOAD moom ne mbetteel amu ko ci kàddu yi nga xam ne jëm na dem ci situation ci wàllu koom-koom fi Sénégal comme ni ko nguur gu bees bi waxee démb. gouvernement bi ba mu ñëwee ba léegi euh, am na ñu yàkkamti woon lool waaye tamit ñoom dañu ni woon euh, duñu mën a communiquer tant que amuñu ay chiffres yu wóor a wóor a te loolu am yaakaar naa il faut le laa tuddee tubaab léegi la prudence euh, mooy tey lépp li nga xam ni kenn dootu ko mën a tee euh, contredire am élément de preuve yi door a wax mooy lu njëkk docteur Seydina Omar Seydi di économiste moo dafa jàpp ne tey dafa jot ñu laaj yenn laaj yi ndax li am doy na waar leçon yi ñu ci mën a tirer mooy appel à la transparence la comme je vous expliqué mais loolu dafa war a jaare ci lenn loo xamante ni li nga xamante ni moom le premier ministre bi avancé ñeneen def un di complet des finances publiques loolu moom mooy mën a permettre ñu xam chiffres yooyu leur véracité dépassement yi maquillage yi et outre. nga xamante ni ñu bari dañoo jàpp donc l'idée c'est de rassurer les partenaires techniques et financiers en informant la Banque mondiale ak euh, de FMI si vous les parties les partenaires financiers et techniques pour leur montrer la situation réelle des finances en ce moment là gouvernement bi man établir un climat de confiance indispensable pour obtenir des financements et du soutien donc lolu amna dëkk yu ko dans le passé à l'occurrence Argentine daanaka lu jege ñaari junni milliard ci bor boo xam ne kenn xamul fu mu jaar loolee lu garaaw a garaaw la dee kàddu mag Maguette gay mi sax jàpp ne FMI war na ci ndey leeral. mais loolu il faut que représentant FMI bi nekk Sénégal xool lan mooy responsabilité FMI ci lu mel noonu man comprendre naa ko autorités yi ñoom mënuñu dem ba di wax lu mel noonu parce que ñoom dafa am lu leen tënk waaye ñun ñi nga xam ne ay économistes la ñu amuñu responsabilité te yàgg nañu fi institution yi que ñun suñu daan dem di évaluer dossier ci gouvernement yi ak ci euh, ñi nga xam ni moom mooy secteur privé dañu daan yónnee li ñu naan business plan dañ ko daan càmbar waaye suñu paree càmbar dañ ko daan xool dañ ko daan xool a xool sur tous les angles léegi-léegi sax gouvernement yi lañ ñuy yónnee ni ñu lii moo baax ni dañ leen naan lii baaxul leneen a baax. ñeneen di ay nag ñu jot leen téléphone waaye mbette la ñu am tiir sax daanaka ci li nga xam ne la ñu wax ni ki démb ci koom-koomu Sénégal ci am lu leer. Seydou ci mën a wax. Seydou Nourou baax mbir moom sax euh, donc la ñuy waxtaane ci kanam tuuti ci gis-gis sax wàllum euh, janoo ak taskatu xibaar yi ak lañ fa siiwal ñoom waa gouvernement bi démb. wax euh, ci mbirum Lat Diop moom mi nekkoon ministre nekkoon tam directeur général bu LONASE dem nag lañ ko yóbbu ca kasu bu rabas ñu koy toppee lu bal alalu réew mi ko partout wante tamit euh, setal xaalis bu lew la avocat am nag di leen xeex ba mu am liberté provisoire ñoom nag gis nañ ne euh, mbir yoo xam ne nag ay rëq-rëq la ci dossier bi lu ci mel ni ki nga xam ne mooy Mouhamed Dieng bu wan expert porte plainte ba pare kenn gis ko mu ne méng la ñuy déglu kenn ci

ñëwul yónneewul te xam nga bu fekkee nit dafay dafay tuumaal nit normalement li habitude bi mooy moom au moins mu ñëw comme ça moom confrontation mais Mohamed Dieng jusqu'à présent ñëwul ñewul yónneewul kenn dégg ko et que moom boo xoolee ci ak ay accusation moo tax ñu arrêté la Diop donc ñun Mohamed Dieng aujourd'hui tey bu ñu arrêté la Diop ci Mohamed Dieng la moo tax ñu ne même buñ ko nar a poursuivre pour extorsion de fonds ba pare poursuivre ko pour détournement de deniers publics loolu c'est incompatible mënul ne parce que origine fonds yi yi Mohamed Dieng di wax loolu nekkul état bi moo ko moom nekkul également LONASE moo ko moom parce que LONASE ba léegi nii ci dossier bi LONASE déposé wul plainte LONASE constitué wul partie civile donc tey su fekkee dañoo jël fonds yi nga xam ne ni moom la ko Mohamed Dieng moom la wax moom moo ko jox ba pare poursuivre ko ci pour détournement de deniers publics y'a problème mu nekkoon maître ba dara Fall di kenn ci avocat yu Lat Diop nga xamante ne eh, fanaan bi guddeem gu njëkk ca kaso bu rëbës wax ci wàllum élection yi nga xamante ne Lat Diop eh, ba moytuwul ci kaso bi la koy fekk war am fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal eh, suba nag la ñuy tàmbalee déposer liste yi suba ak gannaaw suba ci dimanche minuit mu daal di jeex waral nag ba jamono ji daanaka gars yi ñu ngi nag def seen kéemtalaay kattan ngir lépp noppi waaye. nag yombul ndaxte ku nek day bëgg nek ci liste yi ku ma sañaan fay. lu ëpp téeméeri parti politique ak mouvement nek ci coalition Takku Wallu Sénégal ñu mën ci lim APR PDS sukk réwmi lu ñël taxawal seen liste donut lu yomb waxtaan yi ñu ngi koy amal ci ñaata poste de député la ci relé parti wala mouvement bu né Benoît Sambou chargé élection bu APR ñu liggéey bi ñu ngi ci waaw ñu ngi sant yàlla mais xam nga rek defar ay coalition ak ay intercoalition du lu yomb parce que ay parti yu bëri la ñooy dajaloo ay ay ay liste yu bëri ñooy dajaloo donc euh, waxtaan bi moom forcément pour que ku nekk di am say force say intérêt ak bañ ñu léser ñu ñu ñu ñu ñu sa bañ am ay frustration. beneen coalition. le parti socialiste l'AFP le pôle de gauche. parti gauche pluriel ànd ceeg Amadou Ba ñoom nag ba tey ñu ngi ci liggéey bi di defar seen liste liste boobee nag dina wane diversité Lolé di kaddu Zahra Yantiam, Thiam ci nouvelle responsabilité bu Amadou Ba. dina xol ñi nga xamné d'abord buñ leen tànnee dinañ mëna taxawal askan wi danañu mën a jël seen préoccupation en compte eh, té ñun ñëpp rek ci coalition mi ñu jàppandoon ne kuñ fa teg teginu sa bopp mais teginu coalition bi lay doon. ay risque frustration duut ñak ndax politique la ku ne day bëgg am poste député Benoît Sambou. loolu c'est normal maintenant ku ñu jëlul tamit c'est vrai da ngay am déception. élection mais loolu ñëpp lay dal bu ci paree rek xam nga delluwaat rek ñi nga xam ne jot ñu leen jël mais remobiliser leen. bu dee si coalition jàmm njëriñ moom li ëpp solo mooy jiital intérêt réew mi Zahra Iyane Thiam. frustration mënul ñàkk ci politique. mais li ëpp solo rek mooy bu nit ñi xamee ne li ñuy def réew mi la euh, dana gën a yomb et puis mu leer li ñuy wax transparence dafa baax transparence mooy ñi séq waxtaan ñu xam ne lii moo mën a am lii munta am ñu ci ëpp ci coalition wala parti politique yooyee fa see dee dem élection législative yi ñuy amal 17 novembre bi ñu ngi ci liggéey bi ana ban anam la ñuy amalee seen liste ba wàññi cas de frustration yi gannaaw bi ay waxtu rek desee ci ndoxtelu dépôt liste yi bu ñu fa amal ci week-end bi fi mu ne nii ñeent fukk ak juróom-ñeent coalition wala parti politique dem nañ ci ca DGE wane seen bopp ne dañu bëgg dem élection Coumba euh, Sandiane Faye élection yooyu la ñuy des euh, kii di Aly Ngouille Ndiaye nekkoon fi ministre euh, jiite parti bu bees bi di PSD njëriñ nee na nag du ci bokk ci communiqué mu xam ne ne ni ko waral moo di ne app bi dafa gàtt lool wante itam waxaat na waxtaan na ak ay parti yu bëri mais juboo amul seen diggante teewul nag moom muy ñaan ñi nga xam te ne ñooy mooy ay militant ak i soppeem ñu daal di voté fu leen neex donte sax parti bi joxewul ndigal ci ne kii la ñu war a woteel wala kële des ba léegi ci wote yooyu ñi nga xam te ni ñooy APR ya nekk ca diwaanu Louga di kay Euh, amoon nañ sax ab ndaje di AG départemental bu APR foofu la ca diwaan nga waaye ndaje boobu euh, Moustapha Diop euh, nekkoon fi ministre di maire bu Louga teewu fa woon loolu nag jur coow lu rëy ku nekk di laaj lan moo waral teewul dañ ci déglu leeral yu maire yi si la moom président conseil départemental bu Louga bokk tam ci APR ay kàddoom ci micro Nafissatou Ndiaye. woote bépp man woote wu ma ko président Macky Sall moo ko woote jox ñi mandat kii moom ma woon ni ma damay ñëw Louga ndax président moo fi yónni képp koo xam ngaa teew fii tey en tant que coordonnateur bi nga xamante ne jot naa message bi man li ma war a def naa mooy woo naa maire yëpp woo naa responsable yëpp ba pare jël numéro maire yi jox ko ko ni ko woo leen ñoom ñëpp it yónnee naa leen message message yaa ngi ma gardé pour bañ ku ni kenn woowu ma kon woote bii Macky Sall woote képp koo xam ne da ngay nooyee Macky Sall te waroon nga fi teel tappale yi nag bari na nañu arrêté yooyu démb ñoom ñëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla tenir seen réunion la fa génn yëpp man xam naa ko mais du ma ci wax dem nañ sax ba kenn ki ni moom dafay demal boppam ba nommé moom ba pare gis naa liste bi nommé na ko ba pare franchement ci koo xam ne Macky Sall defal na lu ne Sénégal ñun xañ nañ ñu ko jox la ko tey moo taxaw ni day demal làng boppam wax dëgg yàlla woote proposé xaalis ñu proposé xaalis yi ñu xam nañu la <laughs> mu wax xam ne pour gars yi topp am nañ ñoo xam ne nee nañu comme ñun duñu falu dañuy géem a dem jëli xaalis bi maa ngi kontaan nag ci li Pastef def

dina gën a leer xam naa lépp ci kàddu yi Amadou Mbéri Sylla président conseil départemental euh, bu Louga doon addu ci euh, ñàkkatee waayu euh, Moustapha Diop ci seen ndaje boobu boobule keneen koo xam ne dina bokk ci wote yi ni mooy maire bu Mexe di nag Maguette Wade nee na nag li mu bëgg mooy coppite ci assemblée nationale waral mu daal di taxawal coalition bu mu tuddee coalition takku liggéey Sénégal janoon ci ak taskatu xibaar ngeen nii ci leeral dañ koy déglu moom Maguette Wade ci micro Cheikh Anta réew mi mënagul dox parce que ñi fi nekk ñoo ngi soog egsi mais liñ fekk itam ñun amagunu bilan il faut que boo yoree dara da ngay xool def situation diagnostic nga leeralal ko nit ñi nga xool fi nga jëm mu leeral nit ñi nit ñi d'accord ci de façon inclusive et participative ñu fixer un plan d'action on n'a pas de plan d'action stratégique déjà mënagul a dox on attend la déclaration de politique générale on attend le projet gaa yi ngi ciy liggéey et opposition bi itam xëy na bu ñu demee parlement ci loi yi législation bi dina am nu taxawee mais fi mu ne xale yi aussi ni nu yaakaaroon xam ni nguur gi day changer rek c'est une situation changée parce que nous une conscience du nombre bi Nous Nous amuñu conscience ci valeur bi mais nous avons ëpp itam l'information ay formation mais parce que nous avons adapté wul ak des petites et moyennes industries c'est les petites et moyennes industries sont les moteurs de la croissance mooy joxe richesse richesse bobu moy joxe emploi emploi moy jox xale yi liguey liguey bobu mo fi tey xale yi loolu mooy suñu xalat pour que Sénégal jëm kanam il faut ñu am ay industrie yoo xam li muy lek ci courant dafa bari mais courant bi li muy jar Sénégal dafa cher courant bi mi ngi jar fanwer ak ñaar ñaar dërëm ak ñeenti dërëm état bi lim koy subventionné xaj na ci dund gi parce que dund gi cher na tey amna ño xam bu ñu ndéké du ñu añ amna ño xam bu ñu añé du ñu rër ndol bi métti na kon mo wax nañu assurer sécurité alimentaire lolu ñu wax na souveraineté économique baxna mais nun koy doxale doxal bi nak moy liguey ay xulo yi jàpp féké fekk ñun ñëpp dañoo war a jàpp ñu dem liggéey mais yoon bi njëkk ci doxal réew mooy assemblée nationale pouvoir législatif bien que pouvoir exécutif mooy exécuté fa ñuy defaree loi yi di légiférer parce que dañuy légiférer ñoom ba pare mu dem nekk loi loi bi bu ñu ko defee dañ ko war a appliquer mu juste mais am na loi yu bari yu ñu fi légiférer kenn appliqué wu ko. mu nekkoon euh, Maguette Wade maire bu euh, Ngaye une heure tegal fukki minute ak juróom-benn ca Ngaye Mekhe Touba Toual ak Xombol. ak RFM kumpa jeex na. ñu wéy ci euh, xibaar yi wax ci concert boo xam te ne euh, Wally Seck da ko war a amal ca mbuur euh, suba ci samedi ji muy nag loo xam ne jox na coow ndaxte ñi nga xam ne ñooy askano ànd ñu ci neneen li ko waral moo di ne dañoo nekk ci dëcc ndaxte bu yàggul dara rek lu tollu ci ñaar téeméeri ndaw Mbour ñàkk nañ seen bakken bi ñu jëleen gaal pour mbëkki gaal ga suux ñu daal di ñàkk seen bakken comme jamono ji du jamonoy foofu du jamonoy concert waaye ñooy jamonoy dëcc la ñu nekk Abdourahmane Diallo bu fekkee ay jàng la ànd naag lii wante bu dul ay jàng rek àndul ak moom. Wally bu yóbboo mu leer ci boppam waa Mbour xaaruñu ko foofu ci concert samedi bi ñu jëm lenn waralu ko nag lu dul jamono jii nii seen doom yi nga xam ne ñoom la ñu ñàkk ci géej gi ñoom la ñu nekk di jooy te noppeeguñu rawatina ci jamono ji nga xam ni fu ne ci mbuur ñu ngi fay tànt di fa amal ay dëj daam ñëng mooy ndeyu ji réew collectivité lébu. ñoo ngi jooy suñu doom yendu yaakaar naa ku yëg loolu wala nga liggéey boobu nekk si yow doo tal loolu suñuy doom ak suñuy sët ñëpp ñu gaañu bari nañ lool mbuur moom tey jii yëpp ay dëj ñu ñàkk suñu ay doom yu bari di ñaan yàlla xale yal na yàlla yërëm leen waaye daal bu ñu amoon lu ñu gënal lii ñu nekk ñu bokk ak Sénégal yëpp jamono bii ñu toll dara di yëngu suñu amoon lu ñu gënal laa wax lu ëpp ñaari téeméeri doomu mbuur yi bëggoon a dem bitim réew daal di ñàkk seeni bàkkan ci géej gi ñi fa dëkk di wéy di leen dëjal yokk di leen ñaanal li ni mel sax a tax week-end bii ñu génn ñu amaloon ab dox ñaxtu ngir mën a xeex li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mbëkk mi président bi nga xam ne nii moom moo doon suñu kilifa doon kilifa Sénégal yëpp moom si boppam jël na ampleur yu dégâts yu am fii biir Mbour ba mu déplacé ñëw taxawu askanu Mbour taxaw population wu Mbour si li nga xam ne nii amoon ne da leen di génnee sappo yi di génnee ay corps ñu leen ngi sëngéem teewul organisateur u concert bi di wéyal di amal seen promotion wu xew-xew boobu ñoom sax biñ leen jéemeewoo mënuñu cee jot kenn Abdourahmane Diallo Bougane Gueye Dany yi démb wax ne nu baxal wax nañ ko ne jamono ji cent cinquante maanaam fanweer jar ci réew mi du rek nanu baxal nenu omelette tamit seer na lool ci ñiy jaay ndékki ci mbedd mi ne na nag lépp seer di loo xam te ne nag askan wi mi ngi koy méttilu jaaykatu ndékki ne lépp cher ndaxte tamit li ñuy jënd lépp cher reportage mu kalsum soxna Bator di jaay ndékki ci seen buntu kër mu daal di xàll nag benn bërëb boo xamante ni fa defar ba mu yànja ngir mën faa teeru ay client am ci kaw taabalam bi nag lu ëpp juróomi bool yi def ay mayonnaise ton yeneen yi def spaghetti ak yeneen ak yeneen ñu fekk ko nag mu defaral omelette benn client mu ñu wax ni dafa sa waaru ci njëgu tablettu nen bi nga xamante ni mu ngi yokk saa su nekk. kilo ñebbe mu ngi doon jar 700 mu ngi jar 1200. te tey jii koo jaay saa ñu jaayee la ko 3200 nga bëgg a jaay benn omelette 200 da ngay jaay nii rek mais doo si génn mais dëkk bi instant bi dafa gën a métti ndugg bi cher na soble bi kilo mi ngi jar 1000 francs pombiteer bi mi ngi jar kilo 1000 francs bu dee séjour moom mooy jar paquet bi dafa métti dëkk bi daal dafa gën a métti daal ci beneen angle bi fu soriwul dara ak foofu ñoo ngi fii ci bërëbu ndékkikaay bi nga xamante ni Basiru moom moo ko moom ñu daal di koy xamee ci turu bas ndékki moom nag mu ngay jaay ndékkeem li ay at a ngi nii laaj yi nga xamante ni dañ ko xam lool ci quartier bi ndax rek ndekki lu neex li nga xamante ni moom lay jaay. nen dafa dafa cher léegi pompité dafa cher bagage yëpp dafa nga koy yóbbaat moom dafa ñëw ngir jënd si ndekki yi comme mu koy defee saa su nekk muy wax ni dafa rek tiit ci njëg yi nga xamante ni saa su nekk day gën di yokk vingt omelette moom bu normal dina jar ba huit cent parce boo defee omelette ñaar def mburu poireau libre ak mayonnaise def frite loolu dépassé na egg na 800 ba pare kër yi dañoo ndekkeetul sax ku nekk dañ lay jox 500 wala 200 wala 300 nga dem yow nga dem débrouiller ndekki nag jamono ji dafa gën a cher bi la situation tax na ba ñenn ñi sax nañu am ay jafe-jafe ngir rek matal ndekki waxatuma la ak añ ak reer moom jot nga ñette euh, matal ndekki lii ba ndekki ndekki lu foor foofu la euh, ca may ga gi ci jaaykatu ndekki ñu mekk euh, mbedd Medina yi RFM bitim xibaaru bitim réew dañ ci ànd ak Boubacar Dieng Boubacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou yow tamit miin nga ndekki yu baax a baax ndekki <laughs> ndekki mbedd yi. en tant que célibataire loolu na waaw ci xibaaru bitim réew yi dañ koy tàmbaleeg Soudan foofu nag euh, jàmmaloo yi di gën a tar ñi nga xam te ne ñooy àddina bi di woote dal ak njàppale diggante ñaari wàll yi. loolu nag ñu ngi ko wax fi nga xam ni. mooy ndaje mi ndaje kuréel mbootaay xeet yi nga xam ne nag jamono jile mu ngi am si réewum États-Unis États-Unis googule sax Union européenne ak Union africaine ñoom ñoo boole seen ab kàddu di woote ngir ñi nga xam ne nag ñoo jàppale ñi jàmmaar la foofu la si Soudan ñu téye seen loxo ngir jàmm mën a dellu si si boobu lépp dëkk si ak fàttali nag daanaka atum 2023 ba tey ñu ngi jàmmaar foofu mu di l'armée Soudan bi ak ñi nga xam ne nag ñoo di force de soutien rapide di FSR leeral yi ak xarit si la union africaine union européenne ak wa États-Unis ñu amal am ndaje ngir wax ci nekkunu Soudan mi nga xam ni guerre moo fa tàmbali ci fukki fan ak juróom ci avril 2023 ba léegi mbëbët bi ñu amaloon ci mboobale ndaje moo di wéyal di teg fitna ñu ñu bàyyeele ñaari yi di l'armée bu général Abdel Fattah al-Burham ak paramilitaire yi bu général Mohamed Abdan Dogolo ñu koy woowee itam Emetti ci biir boobale waxtaan ñi jiite ndaje bi di xamle ni duñu gouvernement gouvernement wu Abdel Fattah al-Burhan bi que ñi nga xam ni paramilitaires yi fété ci force de soutien rapide du général Mohamed Dogolo ak tamit bëggu nguur gi dellu ci loxey civil yi té mu doon lu yàgg lolu wayé njiit yi dañoo sakku ci réew yi di Égypte Arabie Saoudite ak Émirats Arabes Unis ngir ñu dakkal jappalé gi ñu jappalé ñaari camp yi ci lolu dinañ mëna def pression ci terrain bi wayé ñu japp né itam Russie mom kenn woowu ko ci bobalé dajé jël kàddu nag foofule si ndajeem kuréel mbootaayu xeet yi général Abdel Fattah al-Burhan jiite l'armée Soudan dafa xam ne ni jàmm mënul dellu si tànk ñi nga xam ne nag ñu ngi jàppee waaye fippu di waa FSR teguñu seen i ngànnaay ngir dakkale xeex bi jamono jooju nag li nga xam ne moo di jàngoroy choléra. mu ngi fay def mbir mu jéggi dayu ndaxte lu ëpp ñeenti téeméeri nit ñàkk na seen bakken foofu la Soudan te itam lu ëpp tamit fukki junni nit ak ñeent jot nañoo amagum li nga xam ne nag moo di feebar boobule donte ñu si bari ñàkk guñ seen bakkan El Hadj Ndiogou Diène wax ci Algérie ñoom nag tegaat nañu euh, visa pour doomu Maroc yi bu ñu bëggee dikk seen réew fokk ñu am visa. kilifay Algérie yi nag ñu ngi jël bi lépp dogal démb li ko waral nag mooy dañoo jàpp seen dëkkandoo bi nga xam ne nag moo di Maroc dafay ëppal si li nga xam ne nag moom lañ ko joxoon mu di ñàkk am visa ngir dugg sa réew ma ndaxte dañoo gis ni bari na ay def ko du ñaawteef yoo xam ni dañuy dugg sa réew moomule di Algérie yor passeport boo xam ne nag réew Maroc lañ ko defaree moo tax daal ñu tëj seeni buntu dakkal li nga xam ni nag moo di ñàkk joxe visa bi ñu dellusi si mbir mi ni mel ak Soda Thiam Maroc nag ba léegi yéegul yàbbi ci mesure boobule te moo ni de ñaar fukki at ci ginnaaw ñaari dëkk yi dañoo waxoon ni visa du dox seen diggante waaye nag Algérie moom dafa demoon rek daal di jàpp ni Maroc dafay daal di abuser ci loolu maanaam di ci profité di organiser ay réseau de crime naka noonu trafic de drogue ak être humain rax ci dolli it di amal ay immigration clandestine ak di espionne waa Algérie bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué bu ministère des affaires étrangères Algérie itam ma nga cay accuser Maroc ni dafa yónnee woon ay espion yoo xamante ni passeport marocain la ñu yoroon na ci territoire algérien bi coow li nag la ko waral seen diggante bokk na ci Sahara occidental nga xamante ni moom moo tax diggante ñaari dëkk yooyu nësax Maroc moom dafa jàpp ni Sahara occidental ci territoire am la bokk te beneen wet ga Algérie moom di soutenir Front Polisario bile ci atum 2023 président algérien bi di Abdelmajid Tebboune fësaloon na ni diggante ñaari dëkk yi toll na foo xamante ni mënees na ci dellu ginnaaw ñu jeexal ak biléb xibaar juróomeeli fan bi ci tey waa Israël wéy di bombarde ñi nga xam ne nag ñoo di waa Hezbollah nekk ca Liban euh, buñ ñu sukkandikoo nag ci kilifa yi foofu la ca Liban euh, lu ko juróom-ñeent fukki nit ak ñaar jot nañ ci ñàkk seen bakkan lu ëpp téeméer jële ci ay gaañu gaañu te itam waa États-Unis ñoom nag dañoo jàpp ni su xeex yi la wéyee ngir nit yi dellu ci seen dëkkuwaay dina metti lool jamono jooju itam ki nga xam ne moo di élimaanu jëwriñ bu Israël di Benjamin Netanyahu xam na ni ni war nañoo mën a wéel waxtaan yi lii nag dina gën leer ndaxte moom moom la di Benyamin Netanyahu dafa war a jël kàddu fi ak ñetti simili rek di benn waxtu bu toxtalee fanweeri simili fi nga xam ni nag moo di tribune bu Nations Unies El Hadj Ndiogou lii moo fi rusé woon si ay xibaar jóge bitim réew. ñu lay gërëm bu baax a baax Boubacar. RFM dañuy yegsi kan léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ci ak malal junior diagne diagne maa ngi laa ya? nuyu maa ngi laa fay njóogu football lañ koy dooree ak ko lu soxal qualification eh, kan bu Senegal eh, ci iva léegi nak suñ gandee néew li ñu bëgg mooy jël coupe bi jël coupe bu tournoi ifoa a bi nga xam ni ëllëg lañ ko war a jongante seen diggante ak waa sierra leone ñoom seen entraîneur nee na nag bokk na ci li tax mëbët boobu mën a antu damu ca yëkkati nim kàddu lépp soo da càm moo ko ndax final tournoi UFOA A bobé nek dafa wara dox ci diggante ñaari dëkk yi nga xamante ñom ñoo terminer premier ci sen poule naka nonu génne seen ay adversaires ci demi finale gi te ñu ci torop lu jëm nak ci final gu mag giile koy tàggat gaynde ndaw yu Sénégal xamal ñu né fa ñu daan jaar rek la ñuy jaaraat Serigne Saliou Dia. ben dañ ko préparer ak euh, comme niñ préparer préparé match yoon hein. la seule donne moy que fraîcheur bi ngay gëna a soxla heure bi parce que je pense deux jours de repos euh, nga wara a jouer troisième jour donc il va falloir que li ñuy def yëpp fi mu ne mooy accentuer un peu sur la régénération pour xale yi amaat capacité et là ça passe par beaucoup de glaciation que beaucoup de euh, beaucoup de sommeil voilà c'est ça qu'on est en train de les inciter parce que match on sera on aura béni sur intensité béni sur soxla daw. Oui, nak mangay artu ay joueuram am ne bu fekkee Sénégal tàmm na di jouer final guilé Sierra Leone mi nga xamante ni bi mo nara nek nekk muy amal final tournoi a, ab adversaire bu ñu wara respecter la Serigne Saliou jamoni wahé. ni waxee. Sierra Leone ñoo xaw a donc ñun il va falloir que fasse c'est une expérience nous nous un peu fou jeunesse bi et je pense loolu mooy clé match donc là on a besoin d'être très frais on a besoin de récupérer ci ci effort Sénégal mi nga xamante ne nag titre tournoi gi leen rax ci nek champion d'Afrique catégorie Guilé, leen à def kem Katanam, ba delloo buum ca boy boy ga dalal di Sierra Leone mom moom dafa bëgg a ngir carte ñu waxtane football bi ci euh, tubab ya mhm. dinañu amal tey lu jëm si juróom-benneel bi journée championnat ca France Auxerre Brest Paris Saint-Germain Rennes dinañu lalé Espagne juróomiteel bi euh, bëccëg la ñuy jongante Valladolid dañu koy mo mooy dajante ak wa Mallorca Allemagne juróomi bi journée ci lañu tollu Dortmund ak wa Bochum euh, Italie mom juróom-benneel bi journée AC Milan moo dalal équipe bu Lecce nu jeexalax wàllu làmb nu ni ci Euh, ba sup euh, aser ji dinañu amal kon euh, lu jëm si combat royal bi dox diggante Modou Lo roi des arènes bi ak Siteu mi ka dëkk ab face à face ca télévision Futur Média loolu nag di genn jéego bu ñuy teg gannaaw ba télévision Futur Média xaatime këyit démb ngir doon ki wane combat bi ak waa jàmbaar production ñu ni nag ca biir télévision Futur Média la ñu daal di kon defub géew ngir Modou Lo ak Siteu ñu xas-xasloo télévision Futurs Médias nag ak waa Futurs ak groupe Futurs Médias yëpp ku ci nekk ci ñoom wax nga see ba ngir fexe ne ba gars yi mën koo seetaan ci anam bu am solo def ci tam ay reportage yu am solo ngir wane euh, tolluwaayu wàccaay wi ci diggante Modou Lo ak Siteu Modou nag gannaaw ba mu nekkee roi des arènes bi mooy ñetteel bi yoon bu tegaloo muy tegaat titre boobu te ñett yëpp daf ko teg ci digganteem ak ay ndaw bi ci jiitu di booy Niang mu daan ko ki ci topp di Ama de mu daan ko Siteu mooy ñetteel bi. kañ la war a doon date bi. ci saison bii li ñëw lañ koy dugal. Mhm. ban date la jàpp ngeen jàpp bi waaye dañu xaar ba yegg ci loolu la. waaw incha allah ñu ñu waxtaanee face à face bi suba. suba la dina mhm. na ba ji. Mhm. diggante Lamine Samba. ak Malick Thiandoum. ak Pape Cissé. xam nga Pape moom ay mbiram. lu mu dugg. day mel ni mbiru jinne. macha am na ci bagage yu nas yoo xam ne daal suba. course en télé Futurs Médias association assureur du Sénégal du projet bidium sur digitalisation attestation assurance automobile Touba Salam Caro Prestige Doudoun NCA Assurance ñoo leen ni may li ci yéenikaay yi. li ci yéenikaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fa Ousmane Sonko yendu démb deru Macky Sall jaru fa dërëm dërëm di ay koppar l'observateur ne nañu mooy li gënoon a fës ci ndajeme gouvernement bi séqoon démb ak taskatu xabaar yi Ousmane Sonko nee na Macky Sall ak ub régime dañoo kàcc askan wi kàcc partenaire yi ngir bëgg ca wayu rafet anki dina kay bind ne ay accusation yu garaaw la Sonko def di ay tuuma génnee réew mi te kenn xamul fan la mu di lool am na expert financier buy wax ci journal enquête ne loolee mënut a nekk xaalis bu ne toll mënul ne mër ci réew mi te kenn du xam fan la trésor public war naa mën a wax fa xaalis ba dugg le témoigne nañu ci conférence de presse bi gouvernement bi gonte woon démb ngir doon def état des comptes de la nation Sonko wax na fa ay njuuj njaaj yu mu ne moom la fi Macky Sall ak nguuram bàyyi gouvernement bi ne Njuuj moom la fi ñoom Macky def bàyyi fi sulli na fa ay mbóot yu garaaw garaaw te yéeme point actu bind ne ginnaaw juróom-benn weer yu ñuy def ci pouvoir bi kurpañi Ousmane Sonko yu njëkk tàkk jëm ci Macky Sall démb la woon journal Tribune ñu gouvernement bi siiwal na démb dayob li mu tuddee carnage Soleil national tuddee ko carnage organisé premier ministre Ousmane Sonko ak li mu ne woon état en ruine la fi fekk journal Bës Bi Le Jour nañu di moom premier ministre Ousmane Sonko tuumal na régime bi fi jógee di régime Macky ne dépensé nañu lu ëpp 2500 ci mbiru secret défense journal bi teg ci samp ñaari laaj ci xëtamu njëkk benn bi mooy ndax mënees na falsifié ay chiffres ci finance publique réew mi te institution yu ci mel ni waa FMI waa banque mondiale ak consort duñu ko xam ñaareelu laaj ba mooy Ousmane Sonko waxi démbam yi est jubluwu ci lancé ab campagne électorale jëm ci législatif joxar ak ministre nee yi mu àndalan ci conférence de presse démb bi ñoo ngi toog ci xët mu njëkk journal bi mu ngi koy koy extorsion de fonds ba ma waral mu ñu sisir ay biens zélé ay comptam li ñu koy tuumaal ba tax ñu téye ko ci kasa moom Lat Diop journalisé ko ne nañu bari na ay lee soxul ak mbir yu lëndëm yu am ci procédure bi Lat Diop mu ñu mandat dépôt jël ko yóbbu kaso public yéene mi ngi wax ne dadib adversaire bu série ci wàllu politique ci régime bi fi nekk moo tax ñu neutraliser ko ñenn ciy jegeñaale moom Lat sa public yéene kay li ñu jàpp mooy judiciaire financier ubbil yéenekaay bi ñett ñooñee ñan ak ñan lañu seeni tour mi ngi ci biir journal bi Moussa Bokar Thiam la Mame Mbaye Niang ak Pape Ibrahima Faye mi fi jité won FERA association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation assurance automobile Touba Darussalam Salam Caro Prestige seen bébé Doudoun NCA Assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mbokk yi ñu yegg seeg yéen léegi ciy gis tey nag li ñuy waxtaanee jëm ci janook taskatu xibaar yi nga xam te ne gouvernement bi amal na ko démb ah, ci njiitalu premier Ousmane Sonko ngir wax nag ci tolluwaayu réew mi ak ñi ñi fi nekkoon yore réew mi eh, ngir eh, jàngal lu ni mel nag daañu ci ànd ak professeur Ousmane Sène di directeur bu WARC eh, di koy jàmba tamit ci wàllum politique professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu El tam ci waxtaan wi ak moom Mamadou Sy Albert di sa natt taskati xibaar nekk tam ngay gëstu ci wàllum politique monsieur Sy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiogou maa ngi lay professeur Sène maa ngi lay bu baax. jërëjëf démb euh, monsieur Sy euh, démb gouvernement bi euh, janoon nañu taskatu xibaar yi wax tolluwaay bu doy waar yi ñu fekk réew mi nee ne nag réew mi ñi fi nekkoon dañ ko fawee saax saaxee alal ji wante tam maquiller chiffres yi lu jëm ci wàllum dette beeg wàllum déficit beeg yooyu d'abord noo ko gisee ak li nga xam te ne moom lañ def démb di janoo ak taskatu xibaar yi ngeen di leeral ci tolluwaayu mi. waaw li doon xaar la ndaxte euh, président de la République waxoon na dina dina def audit dina def rapport dina wax askan bi fan fekke réew réewu Sénégal premier ministre itamit waxoon na ko loolu donc gouvernement bi bu génnee dem jaakaar la ak sénégalais loolu lañ doon xaar léegi nag lu dégg moom moo di nekk gouvernement bi def na audit def euh, enquête def service technique euh, état bi def état des lieux mooy situation réew mi fan ci finance publique koom-koom bi ak euh, ak ñu que endettement bi déficit bi croissance Euh, lu ci gën a grave mooy que dañ ko nëbb dañ ko nëbb Sénégalais yi nëbb ko aussi yi nga xam ne ay partenaires lañ muy FMI muy ñeneen. mais loolu borom xam-xam yi am nañ ci euh, dut maanaam seen xel tey na ci ay wàll ñi yëngu ci wàllum koom-koom ne lu ni mel lu mën mën na nu mën a nekkee euh, parce que am nañu saytu goo xam te ne war na am laata ñuy leble wala di génne xaalis loolu nekk na loo xam ne jur nay dut ci nit ñi ci borom xam-xam yi. déedéet war warul am réeru. ñi nga xam ne ñoo wax état def audit audit finance publique def audit euh, finance def audit euh, dette bi dette def audit calculer taux de croissance ñooñu ci administration lañu ñu bokk bokkuñu ci Pastef bokkuñu ci beneen parti politique loolu mooy seen liggéey mooy saytu doxalin réew ci wàllum finance publique ñooñu bu ñu génnee wax lu ñu wax du waxu président du waxu premier ministre waxu technicien ay administration loolu mooy seen liggéey mm-hmm. ñooñu bu ñu génnee ba wax waxuñu ko pour kenn dañ ko wax ngir yàlla ak ngir opinion bi xam lan moo xew dëgg-dëgg ci Sénégal ñu ko yore ci nguuru Macky Sall dis euh, ñoom li ñu wax sax dañ ko circonscrit deux mille dix neuf ba deux mille vingt quatre mu mm-hmm. ñetti at yu mujj yi mm-hmm. donc loolu euh, defe naa war nañu sukkandiku ci administration bi li mu wax Euh, nañ ko téye léegi nag lu des mooy euh, nañu continuer ba ba ba ba Sénégalais yi am statistique yi nga xam ne lii euh, confirme def nañ confirmation mais yaakaar naa daal administration waruñu ñaawal suñu administration suñu administration am nañu technicien am nañu pas-pas am nañu xarañte lu ñu wax nañ ci sukkandiku ba ba dégg leneen nag. nañ ñëwaat ak yow monsieur Sy laata loon dañuy ànd ak professeur Ousmane seen professeur yow naka nga gisee eh, xibaar yi nga xam te ne siiwal nañ ko demb ci jànn taskit xibaar yi nga xam te ne gouvernement doon na ko amal jëm ci wàllum ay chiffres yoo xam ne dañ ko doon maquiller eh, di koy nëbbu eh, partenaires yi wante lu jëm ci wàllum dette beeg wàllum déficit ak yooyu noonu loolu noonu ban gis-gis nga ci am. waaw cest nag euh, mbir mi nañ waxante dëgg aussi ñu ngi ko déggee ci ñu premier ministre premier ministre gaa moo boot administration bi yépp mais premier ministre aussi homme politique la en plus de ça euh, li ma yaakaar premier ministre waxul rek ñu ne gendarme yi wala policiers yi dem leen jàpp gaañi et ministre de la justice bi togon aussi xam la nañu ko te dalal nañu hmm. li lañ tuumaal gaañi li ak li ak li lañ def mais bu su fekkee ne utiliser nañ tuuma tuuma mooy dañ ñaaw njort wala rafet njort ne ñoom ñoo ko def. ministre bi wax na présomption d'innocence dinañ def enquête. avec la présomption d'innocence voilà présomption d'innocence mooy lii mun nañ ko def sa ndodd li mais dañ ko fa def rek en attendant gis preuve yi suñ demee gis ne yow yaa ko def à partir de soba nga dem ci kaso bi nga dem nungu siin wala bo nga remboursé su fekkee gis nañ defuloo aussi mais dans ces conditions xëy na ñu jégalu rek après nga dem et le le ministre de la justice insisté na beaucoup sur ça hmm. et je suis man daal li ma ci rafetlu mooy euh, Ousmane Sonko en tant que premier ministre mhm. jox plusieurs fois ministre de la justice mhm. pour que ministre de la justice mhm. aussi librement wax ñu mbir mi demain. muy dans ces conditions te xaar bi nga xamne fi mm-hmm. ñu confirmer liñ mm-hmm. vraiment euh, you know milliards ak euh, ay ay ay aussi milliards dañ organisation internationale ñu mais ko mm-hmm. dañ complètement mais ñu nek organisation yi ci ak télévision yi di féliciter Sénégal alors que di jox Sénégal xaalis parce que li tax ñu jox ko bokkul ak dëgg yooyu yëpp yoo xam ne yi quand il faut nga taxaw ba pare ne lii kat nañ ko seet ma daal mhm. fi ma ci taxaw mooy dégg nañ liñ wax mhm. ñu su fekkee ne tuuba boobu def nañ ko ñi ko def war nañ war war nañu war nañu gox yi mhm. mais bu ñu bu ñu dugal nit ci foo xam ne fii waruñ ko war a dugal parce que amuñu preuve nañ toog ba nga xam ne euh, euh, investigation maanaam gëstu biñ ci war a gëstu ci affaire justice ñu def ko képp koo xam ne kii jël nga loo xam ne du si noonu nga dem kaso wala nga goqi xaalis bi. man daal foofu laa ci toll. <laughs> professeur euh, ci wàllu woowu euh, ñoom xëy na exercice bi li ci jublu woon mooy def situation bi situation bu doy waar boo xam te ne ñëpp nañ leen bu fekkee ne loolu am na lu doy waar la mais tey jii ay euh, jiixi jaax am na ci xelu askan wi est-ce que loolu day firndeel na ñoom xëy na lañ ca séntu woon demee mu nii maanaam ñëpp génn ci ñi nga xam ne ñoo saax saax àll réew mi parce que ni yàq réew mi mais nit ñi daal dafa mel ni dut lañ gën a àndal gannaaw loolu nga xam ne si woon nañ ko ni xibaar dem ah waaw mais parce que su fekkee ne loolu génnee ko tuumaal nit ñi mais da nga tuumaal rek. nga génne ay chiffres nga génne ko et puis nga def ko moment boo xam ne vraiment liy dox suñ diggante ak élection législative yi bareetugul moto trois semaines mais nit yi seen xel war na ñagas wala mu ñaaw loolu moo tax nag il faut ñu def seen pour won askan wi ne tànk yi ñuy dox pour seen njëriñ la parce que ñii effectivement tout loolu lañ leen nañ euh, parce que chiffres yi montant moment bi gaa gaa lu mel ni premier ministre moom coobaram la mu def ko te mun na ko def temps bu ko neexee kenn du ko koo kenn du ko koo critiqué waaye nag élection yi sorewul de. Mhm. te ñi nga xam ne nee nañ ñoo yàq am nañ seen parti politique ñu ngi fi nee nañ dinañ too dugg ci législative yi donc soo leen tuumalee bon euh, askan wi mun nañ xalaat ne ba kii euh, waxaluñ ko lii wala lii wala lii ndax lii. loolu daal moo ci doon loo xam ne li xëy na aussi su fekkee da ngay xalaat situation ah, mun loo ko a mënuloo ko ñàkk xalaat. nañ ñëwaat ak yow euh, wéyal waxtaan wi laataaloo dañuy àndaat ak euh, Mamadou Sy Albert Mamadou Sy euh, dégg nañ professeur Ousmane Sène ni mu ko waxee contexte bi ak situation bi nga xamante ne daanaka weer wala yees ñaari weer moo des ci élection législative yi tey jii boo ci li nga xamante ne moom la ñu wax mën nañ tey xel nit ñi yaakaar ne mbirum politique moo ci lalu est-ce que caractère politique boobu du yàq liggéey bi nga xamante ne nguur gi bëgg na ko jëm ci wàllum reddition des comptes déedéet yaa man yaakaaruma ko fii fii du affaire politique comme comme réew yi Sénégal am na nuñ ko yore woon. ñoom mais mais contexte bi tamit de joué contexte bi nekk nii ak ay adversaire politique nga xam ne loolu loolu politiciens ñooy wax loolu waa APR ñooy wax loolu ji ngóor euh, nañu waxante dëgg mm. situation réew ñu ne la finance publique yi niñ ko yore lii ak lii lii ak lii baaxul ay administration ñoo saytu ne li ak li mo am loolu suñu état la mhm. bokkul ak politique politicienne bokkul du affaire waa Pastef wala waa coalition Diomaye c'est des administrateurs publics ñom ñoo yoré administration Sénégal ñom ñoo saytu donc ñooñu buñu sayté sayte nga am confiance wala nga bañ a am confiance mais man dama am confiance a naa sénégalais yi dañu am confiance ci suñu administration luñu wax war nañ ci sukkandiku pour ne lii ak lii erreur la woon lii ak lii jafe-jafe la situation des finances publiques defe naa bokkul ak politique. Euh, bu doon campagne électorale. Mhm. Ousmane Sonko mais contexte bi est-ce que du ci joué contexte politique bi ñu nekk nii euh, tey nga ne Amadou Ba Mamadou euh, Moustapha Ba ay Ablaye Daouda Diallo loolu ak contexte bi nekk est-ce que du ci joué nit ñi yaakaar ne mbirum politique képp moo waral lii nii. mais gis nga même bu ñu toogoon at. Nous def politique day dugg di ñom lañu dañu bëgg politiques def politique politique seen Amadou Ba euh, ministre de de finance la won xamna bu baaxa baax nañu yoré euh, réew mi euh, mustapha Ba naka non les ministres yu ñu tudd ñoo ñoy woon suñu kom kom donc suñu defee faute mais il faut ñu wax dëgg Sénégalais yi xam que li ak li amna faute ci gestion des finances lolu bokul ci politique euh, maintenant politique bi campagne bi mu ñëw mais ñom ñep campagne C'est des partis politiques donc droit mais wax ni mi a ñom nañu yi nañu audit yi magistrat yi taxaw wax ku euh, infraction mais magistrat dinañ ko tribunal defe naa loolu moom war nañ ko quand même séparer ci euh, campagne euh, électorale. Mm-hmm. jërëjëf Mamadou Sy Albert daaneel ak euh, professeur Ousmane Sène professeur exercice bi woon démb jano ak taskati xibaar yi ñi leeral situation réew mi loolu en terme de gain de dividende politique nguur gi fi nekk lan la ci mën a gagné gannaaw li mu si woon. waaw mais su fekkee ne ku gëm li ñu wax te xam ne lii taxaw na te def sur le plan politique il faut nga du moyu leen nécessairement waaye nag man gëm boobu laa ne dina xaarandi parce que même mon ami Albert man ngi koy nuyu wax na ko ci jàppandal gi à la fin ne justice dina jël dossier ba pare leeral ko mhm. mais ça veut dire que mbir mi jusqu'à présent amuñ ay ay yoo xam ni nee nañu kii ndoddam le li lañ ciy teg kii ndoddam le li lañ ciy teg parce que lii ak lii ak li def na defal nañu ay fait teg ko ci kaw table bi loolu nag il faut que justice càmbar ko. Mhm. te c'est pour ça que mhm. je dis que premier ministre Ousmane Sonko ak ministre de la justice am na foo xam ne loo même quelle que soit la situation nga bañ d'accord nga bañ d'accord am na situation boo xam ne bii war nga leen ko nangul. wax ji bari na lool lool lool lool lool mais ministre de la justice dafa ne. maandu ci mbir dafa mel ni ku maandu ci mbir carrément. waaw ñu maandu ci ñu maandu ci mhm. waaw enquête yaa ngi ñëw te kenn mënu ma bundu xatal ci li ma war a def. Mhm. loolu nag dafa am nit yi ni ñu ko comprendre mel nañ ko comprendre ñaari yoon. nit yi dañ tëb rek comprendre ne way il veut dire que du toute façon gouvernement bi du ko dugal ci lu mu xamul. Mhm. de loolu lecture la beneen lecture bi mooy. ñi nga xam ne tuumaal nañ leen quel que soit seen doole ak quel que soit ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di leen jàppale man kenn du ma bu kenn du ma sox soxal wala man kenn du ma xoqatal wala kenn du ñëw trafic d'influence su fekkee nit ki prouvé nañ ne ko moo ko def kaso rek loolu la bëgg a wax de part et d'autre amul kenn koo xam ne kii mun nga ñëw wax ci moom wala def ci moom nga xam ne mu jégg jalgati yoon donc loolu c'est un peu doy na xel Euh, euh, ministre de la justice bi doy na xel lool le fait que aussi mm-hmm. Ousmane Sonko jox ko parole bi. Mm-hmm. mu wax loolu aussi dalal la xel. Mm-hmm. parce que ça veut dire que affaire bi nous mu munti demee aussi. fa fa fa fa mbaxana doonee benn lañ ko yóbbu ci ci juste ñi nga xam ne ci juste lañ nekk di àtte affaire bi dañ ko àtte ci ci ci njëkk ak teraan. léegi professeur ci keneen wàll bi actuellement situation bi ñu toll ak contexte bi est-ce que euh, topp fii ay opposant, par exemple ku mel ni Amadou Ba tey jii buñ ne woon dañ koy topp ndax lu mu def ak yooyu noonu yu njort ko def est-ce que loolu euh, du nekk loo xamante ne mën na jouer en sa faveur bu boobaa dana ne ah wàllum politique la gis ngeen waxoon naa leen ko lii wàllu politique la mais def ma dara est-ce que loolu tamit du nekk euh, situation boo xamante ne bu euh, ñu bàyyi xel la. waaw mais kooku kooku kooku moom nga ànd ci ak bañ ci ànd mënuloo ko teggi c'est-à-dire que yow yaa ngi uuti ba pare ñu tuumaal la ci diggante bi. Mm. xëy na mun na tax ñu bari seen njort ñaaw. seen xel tey kooku mënuñ ko ci exclure dimension boobu même su fekkoon ne du motivation gouvernement bi du du du motivation monsieur le premier ministre Sonko mm. mais loolu moom mu ngi fi te kenn mënu ko dindi parce que mu ngi mel ni ngay dem ne damay lebe ba pare am ku jaar ci suuf wax ki lay lebal na kii sàcc la bu ko jox sa xaalis ndax dëgg nga wax ndax waxuloo dëgg mais waaye su ñëwee mais yow. sa xel ko yàq na xel sa xel dina tey sa xel dina tey dina la mm-hmm. yàqal mun na la yàqal donc yàqal sur le plan politique dina mun a am quelque part parce que quand même ki nga xam ne yaay ne maa ngeeg suma gaañee dañ bëgg ngeen jox ñu assemblée nationale ñu ne la ah. de tuumal nañ ko kat kooku moom mun na am ay incidence mais à nouveau loolu aussi je crois que au fond ce que c'était ba seet amul lo xamné li lii woon nañ ci reprocher parce que jeu politique boy sa adversaire foo ko munti jaar pour pour daaneel ko rek mais jaar ko fa loolu la donc politique moom règle yi ngay joué wala ay atu yi ngay utiliser pour pouvoir def sa liggéey wala pour pouvoir euh, tirer le drap de ton côté loolu bari na te y a cette dimension politique mënuñu ko ci génne. jërëjëf professeur euh, ñi lay sant di lay gërëm mu nekkoon professeur Ousmane Sène directeur bu WARC ñu koy gërëm baax dellu tam di gërëmaat Mamadou Sy Albert moom tamit di si naataango taskatu xibaar mbokk yi mu nekkoon gis-gis na woon tam xibaar yi. ela ci njogu jeen nekkoon ci micro bi aliou bah ci machine bi ñu gërëm may sa mbay ci digital bi naka noonu tam cheikh dijane senghor ci production ak abdou cham chef d'édition soxna awa mbay ci kanam tuddi